bonjour c'est qui ça dégg naa leen mbaa yéen a ci jàmm ah? te nag bu leen gisee ma def vidéo bu ndaw bi ah dañ ma nominé ci meilleur influenceur de l'année maanaam euh, ci catégorie YouTube bi leen ba boole ma bëgg nag ngeen votel ma pour vote bi nag sa simple quoi euh, da ngay gis lien bi ci kaw nga daal di bés boo duggee euh, di la liste bi Zal youtubeur mi ci kaw Zal bi nga daal di may votel quoi c'est simple kon nag yow bi may seetaan bu fekkente ne yàgg naa la bégal nga yàgg kontaan ci man ah, demal nga votel ma gaaw zaal yu ci bër ah bu ko defee nag mu mën a jël tawfeex bi quoi ñu ngi leen bon yéen ñi gis vidéo bi ci YouTube bi euh, euh, lien bi mi ngi ci commentaire maanaam mi ngi sama description ci suuf ci commentaire yi boo demee boo ko cliquer rek incha allah dana la fa yóbbu kon boo gars yi dama leen gën a zaal gain